poste de def ko. def ko waaw centre de santé la woon. lépp pour dix pour kii pour le pour le pour Pout amuloon district. amuloon district c'est en 2007 lañu érigé en district. léegi local poste dem directement district voilà. léegi li fi nekk comme comme poste de santé moom lañ def centre de santé. Uh-huh. te vraiment ku xam na ne locaux poste ak bu centre de santé vraiment. war na am différence warul méngoo. jafe-jafe lan la mooy li ma la waxee léegi rek poste lañ ñu nekkoon def ñu centre de santé te vraiment boobu ba léegi. saal yi vraiment mooy suñu difficulté majeure amuñu assez de salle pour hospitalisation yi. ak consultation yi yi ñu am dafa xat ba pare doyul aussi. fii ci maternité bi ñaata salle doyul am nañ euh, deux salles. ci maternité bi maternité bi deux salles bu nekk da leen def trois lits maanaam six lits la ñu am pour maternité bi kese pour accoucher yi ak ñi wan lor pare feebar ñëpp six lits la am pour ñooñu. te ñi ngeen am ci ñuy dañuy bari nañ dañuy am ba cent accouchement par mois kon loolu dafa nekk lu tuuti. parce dañuy am problème pour mettre leen dans les conditions téye leen temps bi ñuy war a toog ci structure bi vraiment da ci am ay jafe-jafe ñu sañoon daal am centre de santé boo xam ne ça répond aux normes comme ni ko yeneen district yi amee vraiment mooy suñu mbébét daal en tant que prestataire vraiment bu ñu sañoon daal am boo xamante ni ça répond aux normes nañ am qualité nañ am <coughs> service de qualité qui répond aux normes vraiment c'est Seynabou Lo madame Camara maîtresse sage-femme centre de santé Pout. ne nga jigéen fi ba dañu leen tëral ci suuf. comme par exemple nee nañu ko dalee ci mois de des fois mois de juin dem ba juin bi accouchement yi dafay bari dafay bari ndax nit ki mënul ñëw yaakaar structure bi nga ne ko place amul demal feneen dañ def accouchement bi des fois mu ñu def boole deux ci benn lal. da nga na ne lal yi dafa ndaw vraiment du confortable ngay boole ñaari accouché ci benn lal ba mi señoon daal lii daal nekk loo xamante ne daal luñ luñ nettali lay doon ñu toog ba di ko fàttaliku naan ah amoon nay tànkat problème mi la amoon léegi alhamdulilah am na centre boo xamante ne vraiment ça répond aux normes nit ñaa ci condition yi duñu am tamit service aussi boo xam ne qualité lay doon aussi délégation bu conseil départemental nga xam ni waa membre bureau bi ak président commission yi ak euh, ñi nga xam ne ñoo yor santé bi njàng mi ak suñu conseil yi nga xam ne ñoo nekk Pout ñun ñëpp ñoo àndoon tey ñëw donc ci centre de santé bu Pout pour xool li nga xam ni noonu la noonu lay doxee ndax ñun dañu euh, bàyyi xel mbiru santé faj yi dafa bokk ci suñuy priorité mook éducation ba tax na bi ñu fi ñëwee gis nañu nii centre bi quand ñu ngi góorgóorlu nag mais ci état bi mu nekk mérité nañu gën leen jàppale moo tax comme yàlla dogaloon na déjà am na enveloppe bu 10 millions bu ñu voté woon ci budget 2016 bi dañ leen firndeel confirmer leen ni que 10 millions yi moom taxaw na pare na te travaux yi dinañ ko réaliser bientôt ndax marché bi joxe nañ ko pare donc kon urgence yi nga xam ni wax nañ ko fi dinañ ko réaliser incha allah ci courant 2016 bi li ci des mooy li pour soxla district bi li mu soxla ci liggéey ëpp na 10 millions mën naa ne ëpp na sax 20 ba 30 millions donc moo tax ñu ni 2017 aussi dinañu xoolaat lan la ñuy jëlaat beneen enveloppe dugalaat ci district bu pour dire rek que euh, district Pout war nañ ko gën a bàyyi xel ndax li muy polariser ci population ëpp na 100000 personnes ndax Pout dafa polariser centre bi dafa polariser commune de Pout polariser commune de Kër Moussa polariser commune de Diender ak commune de Kayar ñeenti communes ñoo dépendre ci ci ci ci poste centre de santé bu Pout yenn saa yi sax day am ñu fiy jóge di dem. jam ñaajo loolu la madame le maire doon wax xam nga loolu honorableul ay nit di jóge Thiès di dem Dakar di faju ji kon war nañ effort bu ñuy def ci Pout rek doyut ba tax na kon dinañ ko gën yokk incha allahu rabbi ci courant 2017 bi yokk ko dugalaat ci suñu loxo mais li ñuy wax suñu ambition pour Pout mooy ñu am benn hôpital même de niveau un centre de santé bu mag lañ bëggal Pout même hôpital de niveau un lañ bëggal Pout te loolu ñu ngi ciy liggéey te Pout dafa am potentialité Pout dafa am potentialité économique bu am solo bu fi nekk kon ñi fi ne ñëpp vraiment di pour di leen di leen suturaal di leen jox mën naa ne koom boo xam ne macha allah kenn xamul war nañ gën a dugal seen loxo aussi ci développement Pout ba tax na partenariat yooyu il faut ñu gën ko développer donc aussi bien muy vraiment waa Dangote nga xam ni il font des milliards ci fii la nekk Pout la ñoo ci gën ki mais aussi euh, entre ay FAPO donc ñu ngi fi donc doyen Baba Diaw ñoom ñëpp seen exploitation yi Pout la nekk Sismar Pout la nekk mais également a d'autres carrières ñooñu ñëpp suñ dugaloon seen loxo ci tuuti rek defe naa ni Pout dina jëm kanam li ñu soxla yëpp dinañ ko mën a am ci Pout d'autant plus que ñoom aussi am nañ ci intérêt au-delà de population yi mais si ñoom it seen bopp ak seen njaboot yeeg seen seen seen seen travailleurs yeeg yooyu yëpp te defe naa ni suñu mutualiser rek vraiment boole ñuy doole yàlla mën a def vraiment li ñu am comme am comme ambition à pour yàlla mottali ko ak jàmm defe naa ñun dinañ ci dox ay jéego dem seeti ñooñu ñëpp waxtaan ceeg ñoom mais aussi effort yi conseil départemental di def du ko arrêté dina ko gën a yokk ba vraiment pour li nga xam ne soxla na ci infrastructure de qualité ci mbiru santé vraiment ñu am ko ndax loolu defe naa ne Pout mérité na ko mais également Thiès yëpp mérité nañ ko te comme ni ñu wax suñu jógee Pout yeneen commune lañ jëm commune bu ne ci Thiès bëgg nañu mu am centre de santé am maintenant ni même hôpital de niveau un ndax defe naa ni paj moom super priorité pour ñun ci département bi de même que l'éducation en tout cas muy di féliciter aussi équipe médicale bi ñu fi fekk vraiment médecin chef bi les sages femmes infirmières yeeg ñëpp vraiment ci seen taxawaay ak comité de santé bi ci seen mobilisation madame le maire aussi ñu ngi koy féliciter di ko demander mu transmettre ñu au maire nos encouragements donc di remercier naturellement le président Malick qui est Pout mais aussi moom xam ne ci conseil ba moom madame le toujours ñu ngi défendre di wax ñu gën a jàppale pour gën ko bàyyi xel ba bi ñu fi ñëwee xam nañ li tax ñu ko doon wax kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum.